voilà en général retard bi li koy causé mooy problème technique lay doon parce que boo xoolee euh, FPSO bi nga xamante ni moo war a liquéfier gaz naturel bi nekk entre GTA bi moom récemment la ñëw. te boo mhm. waroon a ñëw depuis début euh, euh, depuis début 2023 mais malheureusement y avait des contraintes parce que bato bi buñ ko defaree ba pare bato bi nga xam mooy liquéfier bu ñu koy ese mën nañ ci def ay fekk ay anomalies yoo xamante ne. mais bateau bi dañuy wax ni pareegul ñëw na Sénégal mais non xam nga dama parce que bu ñëwee fii nii dañ koy installé waat. parce que installation kese lañu def fële dañ koy essayé ba pare après bu ñëwee fii nii ñu installé ko ci kii bi ci plateforme bi noonu. Mhm. installation boobu nag peut-être que moom yenn yenn sénégalais wala yenn experts loolu la ñu wax ne pareegul alors par exemple tey euh, nga jënoon sa oto. après boo ñëwee ci sa parking nga jéem a xool na nga koy gaaree ci biir sa parking bu mu baax même kii bi aussi euh, même bateau bi c'est pareil donc nga xam ne dañ ko ci wax ne retard bi nga xam ne daf am retard bi du dara lu da ay problème technique ou bien des fois subvention bi nga xamante ni moom la war a am pour euh, pour subvenir parce que bateau bi boo xooloon tey bu dee trans ko war a transporter mu ñëw benn exemple laa lay euh, moo ko war a euh, transporter mu ñëw. Mhm. il ñu discuter ak la Mauritanie. mais BP dañuy wax ne mooy def ay surenchère waroon a jaay affaire exploration bi ko ci pas 4 milliards mu yokk ko 10 milliards loolu la wax c'est ça problème. problème mën na bañ a situé wu foofu noonu de. Mm. mooy li ma la wax bateau yi bu baree. benn exemple laa lay jox bateau yu bëree ñu war ko transporter mu ñëw ñu war a génne 10 milliards pour jëli ko ñun ak Mauritanie ñu jéem a discuter convention yi ñuy déggante BP mën a a mën a discuter ak Petrosen ainsi que Cosmos Energy ñoom ñu mën war a mën a gis discussion yooyu noonu ak convention yi ñu war a trouver entre ñoom foofu noonu problème bi foofu lay situé à ton avis kañ lañ ko mën a xaar par exemple pétrole bi ak gaz bi kañ la mën a sénégalais kañ lañ si mën a euh, kañ lañ si mën jot non en tout cas d'après les rapports pour yow gëm nga ni nee nañu officiellement nee nañu fin 2024 bi est-ce que c'est possible. bien sûr c'est possible parce que boo xoolee travaux yi dem na à 98 pour cent. li pour cent li ci mm. gënoon a jafe mooy que bateau yëpp ñëw. bateau yi agsi nañu. bateau yëpp agsi FPSO bu Sangomar. Mm-hmm. arrivé na FPSO bi nga xamante ni euh, moo war a nekk GTA boobu aussi yegsi na depuis le 11. te bateau yooyu ci la ñuy extraire conserver ko ci bateau yi. boobu dañ koy bu dee bu nekk euh, bu dee bu nekk sans kii ne euh, GTA boobu noonu pour fii